mbiru candidature yu Khalifa Sall ñun njabootu Khalifa Sall du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am incha allah parce que Khalifa Sall lu yoon wax pour que doomu Sénégal mën a bokk ci élection présidentielle daanaka suñu xoolee candidature yu Khalifa lépp mët na daanaka at yu Sénégal yi nar a am pour mën a bokk ci élection présidentielle Khalifa Sall ah, passé na ko Khalifa Sall. tey su ngeen jëlee casier judiciaire am daanaka amu ci benn condamnation parrainage bu ñu soxla woon pour que Khalifa Sall mën a bokk ci élection yi parrainage boobu daanaka mat na euh, bu ci tegu mooy caution tamit bu Khalifa Sall soxla bu bokk ci élection bi tamit ay doomu Sénégal ñu nekk fii biir Sénégal ak ñu nekk bitim réew ñu ngi waxtaan ak ñoom parce que ñoom ñoo ñu woo nañu ñoom ñoo bëgg a cotiser Khalifa Sall mu mën a bokk ci élection yi ndax président Macky Sall mën a xam ñoom fan la ñu toll ci Khalifa Sall kaddu yu président Macky Sall nag yëkkati ci France 24 kooku sénégalais ñépp a kay ñaawlu parce que dañuy gëmloo askan wi ne ni que Sénégal dafa am lu ñuy woy séparation des pouvoirs mooy daanaka amul benn pouvoir bu mën a noot beneen pouvoir te loolu tey lu président Macky Sall wax day wone le contraire day wone ni que moom lu mu jàpp mooy justice tekkiwul dara moom la président Macky Sall daanaka ci gàttal loolu la wax nee justice su Sénégal tekkiwul dara te jarul dara parce que citoyen sénégalais bu dem dugal cassation di xaar verdict cassation président Macky Sall ne man suñu ma falee kooku dina ko jox amnistie daanaka moom du mu ko gisee mooy daanaka Khalifa Sall dinañ ko condamné cassation ñu nag. lu gaañ yi na ma def cassation kooku suñu yoon newu ci parce que tey gune bu juddu ndémb sax dina xam ne ni que ci justice sénégalaise dafa am malaise loolu mooy dëgg te ñun lu ñuy wax moom la union des magistrats du Sénégal di wax loolu mooy dëgg peut-être dañ koy waxee neneen wante moom la ñuy wax tey juge Ibrahima dem bu muy dem ba fippu ba ne moom day démissionné ci justice bu démissionné daanaka tey ci gàttal ci kàddu président Macky Sall moom la ñuy gis moo tax ñu ne ñun lu gars yi namm ci dossier xalifa Sall ci cour de cassation loolu wax dëgg yàlla ñun loolu ñoruñu lu ñu ñor mooy est-ce que cour de cassation mën na àtte xalifa Sall fii ak élection présidentielle fii ak dépôt des candidatures fii ak dépôt des cautions Macky Sall li ñuy dégg Badio Camara ñi ñuy dégg mënul nekk loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg su mënoon nekk dama ne bu gars yi di génne ci appel enchaîné nañ ko yàgg na kon mënuñu ko enchaîné parce que ñu ngi gëstu di xool fan la ñuy jaar pour mën a galgal Khalifa Sall te bañ ci feeñ te ala kulli aal suñ ko bëggee def il faut ñu feeñ ci parce que pour ñu mën ko def foog ñu def ko teg ko nag ci bi yoon nag ci maa tey parce que première instance jaay doole la woon appel euh, dañu doon jéem a nelawal askan wi bii yoon nag lu leen dese mooy maa tey maa tey nag kooku moom suñ ko suñ fa eggee ak ñoom ah ngeen xam ne ni que yéen ñiit sénégalais yéen daanaka da ngeen am si carte d'identité rek pour la forme parce que du ngeen ay citoyen te loolu il faut ñu gestuwaat ko xoolaat loolu nuñ koy nuñ koy lijjanti parce que dëkk bi ñoo ko bokk dëkk bi santul Sall moo tax ñuy biralaat wax ci ñu ne Khalifa Babacar Sall ci yéen ñu ci am xel ñaar ci candidature am parce que soi-disant mu ngi ci kaso bi na bàyyi xel fu Khalifa Sall nekkoon bu muy def euh, balaa ñu koy fal pour mu dem assemblée nationale mi ngi woon ci kaso bi tamit ñun bu ñuy defar suñu liste ba jiital xalifa Sall mu nekk tête de liste amoon na lu ñu namoon ci loolu te yàlla def na ko ñu ciy sant yàlla bu baax a baax mooy muy dem assemblée. waxu kaso bi du ci dara Ama Amadou au Niger gis nañu Ama Amadou était candidat à l'élection présidentielle dem second nekkoon ci kaso bi dem second conditions yi doyu ko mu boycotté fu may daanalee mooy ñu ngi interpellé union des magistrats du Sénégal ñu ngi interpellé société civile ñu ngi interpellé direction général des élections ñu ngi interpellé tamit bépp acteur buy dugal loxoom dans le processus électoral parce que tey réglementation bu am ci dëkk bi ci mbiru élection amul benn disposition buy jël en compte détenu candidat te ñun lu ñu gis ci élection législative yi mooy élection député yi mooy ay àq ak ay yelleefu Khalifa Sall sukkandiku ci la loi électorale nguuru président Macky Sall dañ ko jalgati ci élection député yi daanaka temps d'antenne am dañ ko jalgati droit de vote dañ ko jalgati son droit de bat campagne dañ ko jalgati lu ñuy bañ nag mooy bii élection mooy élection présidentielle Macky Sall di wax ak askanu Sénégal ci RTS Khalifa Sall bañ a mën a wax ak askanu Sénégal ci RTS loolu dafa mënul nekk dans une démocratie qui se respecte lu ñuy bañ mooy président Macky Sall nekk candidat sortant nekk président sortant nekk candidat élection président jour élection mu mën a dem voter Khalifa Sall dara jotu ko mënul dem voter ñoom ñoo dugal xalifa Sall fu mu nekk nañu jël urne dugal ko fu Khalifa Sall nekk loolu mooy yoon parce que le casier judiciaire de Khalifa Sall il est vierge vous pouvez le consulter lu ñuy bañ tamit mooy ñoom ñu mën a campagne xalifa Sall du mën a campagne liberté provisoire contrôle judiciaire dafa nekk dans le dispositif judiciaire te dañ ko fa teg pour que ay doomu aadama yuy remplir ay conditions mën a nekk mën a nekk ay ay ay ay ay ay ay sénégalais peut-être yàlla dogal ñu am ay tolof tolof ak justice bi wante ñu mën leen may liberté provisoire waruñ jox leen contrôle judiciaire ndax ñuy dem di dikk tey Sénégal man mii bi wax ak yéen maa ngi contrôle judiciaire maa ngi liberté provisoire fii tey Sénégal Khalifa Sall ñu ngi koy topp ci un milliard huit ku nekk xam na Sénégal Khalifa Sall fu mu dëkk ku nekk xam na Sénégal est que Khalifa Sall am na ay conditions yu nga xam ne nii mën na garantir sa représentation devant la justice am déet fii Sénégal am na ñu nga xam ne ni dañ leen accusé de meurtre moo am ñu jox leen contrôle judiciaire jox leen liberté provisoire dara dara dalu leen dara jotu leen nekku ñu hôpital feebaruñu ñu ngi dem di dikk ñu ngi fecc ñu ngi naan ñu ngi lekk ñu ngi tukki waaw lu tax Khalifa Sall mënuñu ko may liberté provisoire te ko contrôle judiciaire mu campagne loolu mooy loolu mooy yoon te wax ji mënuñu ko laam-laamee moo tax sànq Cheikh Gueye ne leen yéen de la presse ñun suñuy wax ak presse bi waxuñu ak ñu ngeen xam ne ni yéen ak ñun minante nañu parce que yéen xam ngeen bu baax a baax a baax xataay bu dëkk bi xatee xam ngeen ko parce que fi ngeen dëkk fi ngeen di yeewoo